jërë ngeen jëf euh, mbokk internet yi dal leen ak euh, jàmm rek ba tey ay jafe-jafe yi nga xamante ne si rek euh, patron de presse yi jamono ji ña ngi koy dund mu doon ay mbir yoo xamante ne si rek daas nas koy nemmeeku ginnaaw rek ñenn si ay directeur yu publication banu rek bolekee li nga xamante ne si rek moo di seen i compte ñeneen nag patron de presse yi jamono ji jëm si wàllum impôt yi xamante ne si ne rek war a daati fay kooku di El Hadj jiital directeur rek foofee di DST TV moom nag muy xamle na rek dafa rek daal di fay li nga xamante si moo di impôt muy ñaax nag ñi nga xamante ne si na moo di eh, moroomam yi muy wax na rek bala ñoo jiima eh, saafara lenn rek a moo di rek eh, bi mu doon nag mbir am solo yoo xamante si ne kookee di njiitum réew mi tamit noonu la ko soog ko ñoom it ña ngay ñaawlu nag bu baax a baax la nga xamante ne si ne rek moo di kookee di Macky Sall defoon mu doon nag wax na rek loolee jëm si wàllum impôt rek leen nga ah, jéggaloon waaye nag loole mu mel na rek ah, daatiwul antu ba tax na rek jamono ji rek ñu commencé di dund rek li nga xamante ne si ne moo di ay jafe jëm si ah, presse yi jëm si wàllum impôt xamante ne si ne rek lu nu war fay la su bëree bëri nekk war a fay loole di impôt nag ba tey askan wi tamit ñoom ànd na ndax ku ne xam na nag l'impôt ñëpp rek ñoo ko war a daati fay waaye nag presse bi ba tey rek jamono ji la ñu nemmee ko rek ay jafe ñu koy dund si mujj a gis rek si suba te ji mu di kookee di ma jàmmal kookee di Lass Ndiaye rek ñu xam ne na moom rek daan na fay li nga xamante ne seen rek modi lamu la impo dat kay fay lolé nak ñu ci bëre bëri jamono ji rek ñang kay koy rafetlu bu baax a baax ndaxte nag loole lu war la te koy ko ci defeti nit ñi dañ lay filitisé di ko rafetlu bu baaxa baax kon nak patron de presse jamono ji rek ñom tollu nak ci sakap audience faské ne rek gisé ka nga ci ne modi ko moo di président basirou Diomaye Diakhar fay ndax gisé ak moom waxtan rek xol naka la ni trouver solution jëm ci wal impôt yi nga xamante ci si ne presse ci su bëree bëri daatul rek fayagun li nga xamante ne si nag moo di eh, seen lemp te suñ ko boole su moytuwule xaalis boo takku la nar a doon war kaa rek li nga xamante ne si ne moo di eh, nguurug Sénégal jëm si wàllum lemp mu doon ay mbir yi xamante ne si nag rek gouvernement bi mu toogee ba léegi mbir yu bëri bëri da nekk di ko jubbanti